xam ne mi ngi raam di ñëw ci ñàkk ba bu fa yeggee du baax ci kaw la ndax ñi ngi seetlu ne ay sos ay tuuma ay wax yoo xam ne tegginewul ay accusation yu jóge ci beneen camp bi di ñëw ci ñun arrêté wul depuis pré-campagne beeg léegi dem nañ ci nax ba léegi sax yemuñu foofu dañoo dem ci nag bay egg di agressé di dóor suñuy ñoñ di leen menacer di doxalee noo xam ne jéggi na dayo te yoon dàq na ko loolu nag bi ñu ko xoolee ba léegi ñu gis ne mi ngi tàmbale boo koy seetlu depuis samedi 18 décembre 2021 ca ngoon ñu accusé ñu ci loo xam ne yéen ñi ñëpp tegoon ngeen ci seen gët ne dañoo dogale benn cortége am nu ñu fa def te xëy na yowén bi ñu demee ba xool ko ba càmbar ko gis nañ ne dara nekkul ci dëgg loolu lépp ay sos la woon dem nañ ci sax bay wax ne dañu doon bëgg a faagaagal ki nga xam ne moom moo nekk kandidaa bi nekkee suñu en face loolu mu nekk lu doy waar ñu ne nag bi loolu weesoo am na leneen lu ci topp samedi vingt 26 décembre ca ngoon moom am na lu xew ci benn kër ak benn liggéeyu kaar bërëb boo xam ne kenn ci ñun maanaam dañ ko fa fekk ak njabootam am nu ñu defal ak ñoom yàq fa yàqate ko def jaxase foofu yépp gis ngeen vidéo yi mu doon di circuler ñu dem ba benn jamono ñooñu aussi porter plainte lu ne def nañ ko mu jiwul fenn furaas ni si dem loolu yëpp dara mujjuwul fenn ñuy dem ba jëmm le lundi 10 janvier bi ñu génn ñu defoon suñuy poster wërale ko ci Kaolack ak li ko wër def ko ci poto yi pour nit ñi mën a am image yu ñi nga xam ne ñoo ñu jiital ñu jaar ci ginnaaw yàqate ko tasaare ko wàcce ko yenn yi sax ñu yóbbaale leen te ñu ngi toll ci li mu cent 180 sur les 300 yi nga xam ne moom lañ ci defaroon te li ci gën a metti moo nekk ne bu doon sax maanaam dañ ko def rek bàyyi noonu waaye dañoo jël seeni photo ñoom waa coalition Benno Bokk Yaakaar taf ko ca ay eh waay bu nekk kay ñoom jàmm rek moo leen tax a jóg loolu kay bu la neexee ñoom bu ñu defee verso ñoom ñu def recto ndax poto ñaari côté la bu ko defee jàmm ne ñooy kenn du am problème mais dañ ko yóbbu sànni côté yéen gis ngeen ko teg ngeen ci seen bët constaté nañ ko nag ak huissier dinañ ko jaarale fi ko war a jaarale démb ci ngoon muy mardi 11 janvier bi ñu génn kenn ci suñuy ñoñ ñu ràññee ko lool ci réseau sociaux yi muy def liggéey bu mucc ay dañ ko fekk ca benn bërëb jàpp ko dugal ko ci kër yéen a ngi gis vidéo yi mi ngi daw di ko dóor xotti yére yi ñëw tiim ko di ko menacer di ko wax looloo xam ne bugg ko wax ngeen teg ci seen gët ñu koy ñaawlu de la manière la plus extrême période électorale nag xam nañu ne période fitne la loolu ñëpp xam nañ ko fii ci Afrique rawatina Sénégal waaye rikkuwaay dafa am loo xam ne dafa xajul ci ay nit ñu nekk benn surtout ñoo xam ne ñu ci ëpp ay xarit lañoo ay nit ñuy ànd dafa dul rafet ñuy dégg yenn yi mu ngi jëm ci diw wala mi ngi jëm ci diw alors que bu ngoon jotee bërëbukaay yi ngeen di toog di waxtaan di féexlu yéen a koy bokk loolu rafetul loolu nag tax na ñun waa coalition ànd nawle ànd liggéey te ki nga xam ne mooy monsieur Serigne Mboup nekk ci bopp ànd ci ak Youssouf Bengeloun fas yéene nañu bis ni ki tey condamné lu nu mel ñaawlu ko ba ni mu gën a ñaawee insister ci ni ñu ci insister xamal leen que ne lii raam nag mi ngi waaj a egg ci ñag bi te bu ci eggee de ah du gënal fa nekk ci ko walla ba de du gënal aussi ñun ñuy toog